alhamdulilah rabbil alamin ñu ngi sant yàlla bu baax di julli si yonent bi sang-sang yi ci moom bés bii nii di kontaan ci bés bii bés bii bés bu màgg la bésab gàmm la bésab gàmm bu màgg la lépp luñ ci def dañuy màggal juddub yonent bi di gërëm di sant nag di njëkk ci borom kër gi nga xam ne bu yàgg dong la nelaw waaye ba mu demee ba wu fi gàcce ay doom la fi baax doom yi baax bëggante àndoo papa Ali way njiit Abdoulaye topp ca Moodu nekkul fi ma nga amiri mooy seen mu yore kër gi enu kër gi kenn xiifut kenn marut kenn raflewut luñ bëgg rek mu defal ñu ko gàmmu gaa ngi nii ba muy ñëw dañ ne woon pa imam nekku fi waaye daaw la gën a neex tere nin mooy raw bu soobee yàlla fekk yàlla ngi koy may fan yu gudd ak wér gu yaram papa Aliou jiitu na ay rakam topp rakam yi topp nañ seen kaw ñu daal ñu ngi gërëm di sant jéeg jaa ngi nii togg a yekk rek lañ fi nekkee ba bàyyi imaam demee tey la ceeb bi gën a tooy tey la ceeb bi gën a neex waaw kontaan rek def suñu xarit ju ma ngi ci kër gi maa ngi ci kër gi waaye goro yii dañuy togg ba mu neex ñu yekk taajal ñu lekk bàyyi imaam daal jooyuñ ci dara tuuti ci moom ndax wàcc na fi barke ak wësal ci la ci moom la ñuy def waaw Cheikh Aramine ma ngi ca réew ma ñu koy gërëm di ko sant mbooleem ku dëkk ci kër gi rek ñu ngi lay gërëm di la sant la ko dalee ci fannis ba ki rakkam la ko dalee ci muudu ba ay rakkam ñun jooyuñ bàyyi imaam fi na dañuy noppi rek kontaan wax dëgg yàlla doon nañ koy jooy waaye jooyatuñ ko ndax am na remplace ñu ngi gërëm ñu ngi sant fii di xadara Léona Niassène nga xam ne ni ko maam Khalifa daan waxee yàgg na fee daagu yàgg na fee ñëw di seet si nga xam ne mooy xaritam soppeem turandoom ba wax ne sax fa bi ismi wa ismil Mustafa shabahat mimun wa xaaun wa mimun maad daal kooku noonu tey nag moom lañuy teral di ko màggal ci bisub bu tedd bi nga xam ne ci la judd woon nga xam ne juddoom nga ci la lépp leere ci la àdduna bi defaroo ci la mboolem luy mbindeef amee ba maam xalifa mi ñu koy wax ne ko anta kanzul ilahi wa zuxr wal iz zuwa min nax naamaaw xéewal yépp ci moom la juge ndax moom mooy ki nga xam ne moo fi nekkoon moom yàlla suñu borom bi mu bëggee ñu xam ko nag ci la andi sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam ndax kuntu kanzan lam uraf fa ahbabtu an urafa fa bihi taarifuuni léegi nag suñu borom dafa jël ci turam wu ñuy wax mahmoud mu bind ci muhammad fa suqalahu min ismihi li yujillahu fa zul arshi mahmudun wa ana muhammad loolu la ko yàlla defal waaye nag maam xalifa ñas radiallahu anhu bis bii bu jotaan ni mu ko daan fugloo nga xam ne léppam yonent bi sallallahu alayhi wa sallam la waaye nag jaaree ko nandalee ko ci baayam alaaji Abdoulaye Niass ndax baayam alaaji Abdoulaye Niass moo ko yar te ko jàngal ko xamal ko kan mooy sallallahu alayhi wa sallam waaye loolu yëpp bi muy am baayam mi ngi ko koy nettali mu ne ko bàyyi da ngaa rek waaye man la nga def ak yonent bi sallallahu wa sallam yëpp xam naa ko ba wax ne saafatuhu bi yamini fi musammaratin wa damani dammatan sa xab biha ilali waaye keroog la maam Khalifa wax ne lépp luy nit di dégg ci làng ak mboolem ni koy làngee ba picc yi sax li ñuy wax maam Khalifa nee na keroog laa ko xam photocopie la ma yónnent bi defal ba daan na wax ne man qassahu bi waadixil bayaani min bayni kullil biidi wa sudaani waaye nga gis ne ndénkaaneel maam Alaaji Abdoulaye la ndax maam Alaaji daan gàmmoo bu guddi gi jotaan mu ngi ko daan gàmmoo ci yeneen téere yu mel ni imaamul Busayri ñoom gaa yi yàlla yooyu nekkoon fi dégg nga waaye ñoom euh, Hassan ñooñ la daan gàmmoo seen téere waaye nag mu dem ba mu yàgg nag mu ne kuy wàlliyaani sa dëkk waaye waaye sama taaw bii di Mouhamed Amina man may Abdullah waaye waaye sama taaw bii di Mouhamed Amina wax na turandoom ne ko antalil kaw ni bahjatun wa bahaa'u wa tajallat bi nuurika walmaaw waaye nga gis maam xalifa téere bi mu njëkk a taalif ci yonentu sallallahu alayhi wa sallam mu ngi ko tuddee naylul maraam fii fii madaxi xayril anaam léegi nag matlax ba ca commencement ba mi ngi ko ubbee jaabat xifaaran bia dalla anisa biha salma ilayya wa duuni bahru ahwali dem na ba si ba sa biir sax mu naan qaadat ilayya wa bil jaraa iman diluna fa hayya jadliya aw jaayi wa aw jaali mam alaaji nag di ci gàmmu ndax kenn mënta wax yonent bi te waxoo xalifatul xaaji muhammad waaye kenn mënta wax xalifatul xaaji muhammad te waxoo mam alaaji abdoulaye ñes ndax mooy lépp waaw ñun tey bu ñuy sumil daal ak mam alaaji la waaye nga gis mam alaaji jël téere ba di ci gàmmu ci naylul maraam ba yàgg nag maam xalifa defaat beneen téere dee ko miraatu safa fi siirati nabiyil mustafa matlaa ba moo nekk way bii ma doon wax sànq antalil kaw ni bahjatun wa bahaaw ba ca biir mu naan ko anta baabul ilaahi anta al murajja anta min adwa il qulubi shifaaw mamalaaji nag téere boobu la mu gàmmu ci mujj ak dundam ndax mamalaaji 1922 la fi bàyyeekoo 1921 maam xalifa taalif téere boobu wane ne moom kat dafa jàkkoorloog Seydina Muhammad di ko tagg dale ko ba leer ga amagut bay bañ ko amalee ba nga xamee ne sax yonent bi bi muy génne àdduna ku mujjoon ca xabru ba Bilal mi nga xam ne nit ku ñuul la mam xalifa wax na ko téere boobu nag ci la maam Alaaji gàmmu benn at bi mu ci gàmmoo benn at yàlla def mu daal di wuyu ji boromam bàyyi fi taawam bu tedd bii di xalifatul xaaji Muhammad nga xam ne ndénkaaneem bi mu defoon ci wasifa wa Mame El Hadji jël mbooloo mi nga xam ne toppoon nañ ci ginnaawam ne leen sama taaw baa ngi nii xalifa bu dakkut bu ëllëgee dana ma leen jox ma jox leen Seydina Cheikh radiyallahu anhu Seydina Cheikh jox leen yonentu sallallahu alayhi wa ma ànd ak yéen daal dugg aljana Mame El Hadji nag maam xalifa kenn du layal Mame El loo wax rek maam xalifa bind na ko ñu ne ko xalifa loolu kañ la mu ne kama xadda cheyqi baada daaka wa walidi ala ulfati misla tibaail xalifati maam xalifa mu ne la daa mashadil jumhuri axiru umrihi bi taariqi samsi baada zikri lwadifati mu ne bi nga xamee ne wasifa jot na bi ñu wasifa ba pare ci àjjuma ci la maam alaaji dénkaane njaboot gi dénk ko maam xalifa muy taawam ndax nag dafa yëgoon ne maam xalifa fal nañ ko ci lépp fal nañ ko ci diwaan mu nekk xutbu waaye sax maam xalifa wax na ko ci biir téeréem bi ma ngay wax naan fa gaay yàlla yi naanee man falaa naanee qad udirat kasuha bi yamini bayna qawmin man saqaahum saqaani mu ne ki nàndal gaa yi yàlla yi te mooy sayduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam man xalifa mooma nàndal kon nag xalifa la ci saydina cheikh waaye xalifa la ci yónnentu yàlla muhammad nekkaat xalifa ci alaaji abdoulaye ñes loolu garaat boobu yàlla moo ko ko takkal ndax wa anna alfadla bi yadillahi yuti man yashaaw wallahu dul fadli azim moo taxoon mu daan wax naan man daal man xasawu bi waadixil bayaan yi yàlla may na ma xam-xam bu leer naññi bayaan boo xam ne bu ma waxee ñëpp dëggal sama wax ji ba biñ koy takkar raaya bi 2000 l'an 2000 maam Khalifa yéex na bi ngeen ma koy takkal ndax man def naa ay diwaan yoo xam ne tagg ko yónnentu yàlla Muhammad def ay diwaan tagg ko Seydina Cheikh radiyallahu anhu waaye gis nga sax moom dafa amoon cofeel ci yónnentu bi ba mës naa gis benn pitax bu taxaw ci kaw garab rek mu daldi nag xool pitax mi na mi sabe ak na muy waxee mu ne kii kat pitax mi kat waxut kudus Seydina Cheikh radiyallahu an fa bulbulu Cheikh fii afnaani dawxatihi ba bayit ba jeex waaye gis nga ngelaw sax bu ko rombaan dana ca def xasiida tagg ko ngir Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ndax mas na di jàngale benn bis ci ron mbaaram nga xam ne bu fa toogaan lépp lay xam le dana la xamal yàlla xamal la yónent bi xamal la kan mooy seex waaye xamal la ci sa wàllu diine ba nga deñ réer nga gis nag mu toog benn bis rek benn ngelaw lu sedd daal di départ daal di utali rawdu bu tedd ba te mooy Medina nga xam ne wax na ne boo fa demee bu yónent bi tàqalikoog yow wala ngay bëgg a moom rek da nga xam ne yow mii yaa ngi yëg ne ku sell ki te mu tedd te gën ñëpp te mooy Seydunaa Muhammad yaa ngi tàqale ko moom in faaraqal jismu mit tiiba rawbatihi fal qalbu sama rahiinu shawq fi darami waaye nga gis bi ngelaw li déparé rek mu ne waay waaye ngelaw lii de tey ngaa ñëw ma yóbbante la ay kaddu ay nuyoo yoo xam ne yaa ma koy joxal sama soppe ba sama turandoo sallallahu alayhi wa sallam nga di ko noonu la ko daan defee lum gisaan rek nga nga nga taaru rek mu ne yónnent bi sallallahu alayhi wa sallam moo ko jagoo dégg nga waaye noonu nga koy toppee noonu nga koy toppee bam bam way yónnent bi sallallahu alayhi wa sallam ci biir waya mi ngi naan ko euh, du mayya du layla du daad ñoom ñëpp bal xubbu man xubbuhu fi ruuxi mumtazijun qabla takawunu masjar raaxi bil maayi ay daad ak layla ñooñ xam nga ñooñ ñëpp jigéenu araab la ñu woon dañ ko daan misaalee seen rafetaay waaye maam Khalifa nee na ñooñu li ñuy rafet rafet man bëgg ñooñu taxu maa jug xam nga ki ma tax a jug mooy sallallahu alayhi wa sallam mi nga xam ne moo ma nàndal lépp lu ma am ci moom laa ko amee. kon maam Khalifa moomu tay njabootam ak ay taalibeem ñoo tàntal yonentu sallallahu alayhi wa waaye nga gis ne moom léppam dundam lépp da koy jox yonentu yàlla Muhammad taalibe yi mu ne leen yonent bi sallallahu alayhi wa ba daan na wax ne. yéen taa samay doom bu leen réeral taalibe yi ñu ne ko lan mooy réeral taalibe yi mu ne taalibe yi ñëw ziyaare si jox leen seen alal te defu leen si seen dënn ya dara moo tax moom bu la xoolaan rek da lay nàmpal comme monaat nga fees dell moo tax euh, tafsir Moustapha foofu laay tëje kenn la woon ci taalibe yi mu ànd ak moom ca kawi kaw ca ré ca asamaan jeexee di ko wan naan ko photo yi comme foto yi si nekk si néeg bi nii naan ko kii mën a kii mën a kii mën a keroog ba tafsir Moustapha wàcce dafa toog ay fan nanguuta lekk nanguuta naan tëdd rek ñu téye cër yi waaye nag ma ngay jabbatu ndax dafa fees dell ci yàlla waaye nga gis daal euh, tafsir Moustapha gaa yi ñëw ne maam alaay maam Khalifa ah tafsir nag mi ngi bëgg a jaaxal ndax lekkut naanut moom daal cër yi rek demut mu ne leen niñ téye cër bu buñ ko téye woon làmmeñ wi ngeen rob kuy dund waaye sax moom ba pare paree yëmu ca moom daf caa def benn xasida ne xaadanil qaidun ilaahi bi imaani bi yamini faniltu aqsal marami mu ne man na ma ki ma man nag mooy kan mooy sama sëriñ borom mbaar mi ci la roñe seen nga xam ne lépp lum la waxaan si yonent bi deñ lépp lu la waxaan si cheikh du deñ waaw kooku nag moo ko ommat dama ko yóbbu ko ci kawi kaw di ko présenté photo am yëpp naan ko tafsir koo fi gis rek man la kon góor googu ñun moom la ñuy noyee mooy suñ lépp ndax bëgg ko mooy bëgg Seydina Muhammad bëgg ko mooy bëgg Seydina Cheikh radiyallahu anhu ndax kat gis na ne Seydina Cheikh radiyallahu anhu buntam yëpp ci Seydina Muhammad la lax mi ngi ko wax ne ko zur baabuhu in takun min ahli hadaratihi fa innama baabuhu baabun saadaat yi kon buntab texe boobu ci Seydina Cheikh moom mooy continuer ba ci Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam moo tax daal mu daan wax naan man daal ba ma bëggee yonent bi laa ko commencé xëyal di ko gontal ñu ne ko xalifa bindal mu ne mu surtout du wowum si fii xubbi xayri rijaal yi mu mel ni sax gars yi am na ay diingatkat yu nekk ci am naan ko génnal sa mbaar mi yaay taaw ndax boo nekkee taaw responsable yi aju si yow dafa bëri mu ne leen waay waay wala usiqu li azlin fihi wa laftul ubali waaye waaye ku bëgg a xam ci sama soppe bii di saydina muhammad ñëwoon ma wax la ko man yusqili zihna minhum fi uznihi mutalali wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu ñi ngi gërëm ñëpp ñi ngi sant ñëpp ñi fi ñëw ñëpp ci gan yi nga xam ne maam xalifa rek ka leen tax a jug waaye yónnentu bi moo leen tax a jug ñu jaaree ko ci buntab xalifa ndax xalifa waxoon ne ne wahdi bihi kulla man tamassaka minni bi iqaain aw xidmatin aw nasibin kon fii ci réew mi ñu ngi koy liggéeyal moom Seydina Muhammad waaye ci biti réew tamit ñu ngi ko fay liggéeyal ci Italie ak fépp da nga fay fekk njabootu maam Khalifa ñun tamit ñuy kenn ku xeebu ci kër maam Khalifa di ko liggéeyal jaare ko ci buntam maam Khalifa kon ñu ngi ñaan yàlla yal na yàlla defar gàmmu gi defal mboolem aajo yi waaye tamit wéradi gi yëpp yàlla faj ko ci barke Seydina Muhammad jàngoroy xol yi jàngoroy yi waaye tamit ndigg yeeg tànk yeeg yëpp ci bis bii yàlla mën na ko yàlla na ko yàlla def dafa am benn mag mu baax moo xam ne kéemaan la woon ci bi maam xalifa génnee àdduna ñu ne bi maam xalifa génnee àdduna dañoo teg jaag bi pour war koo yëkkati benn góor gu baax dañuy nëbbu turam mu daldi di ne ah man de am naa benn feebar waaye feebar bi de maa ngi taasu ci barkeb xalifatu xaaju muhammad bu dee wëlliw yàlla la maa ngi taasu ci barkeem sama feebar bi yàlla na fi doxee wér bu ma jàppee ci jaag bi feebaru ndigg luy métti la yoroon keroog bam na cas jaag bi bañ koy yëkkati maam xalifa borom jëmm ju tedd ja ca tëraayam bu tedd ba mu ne keroog ba ma yëkkatee jàpp ci jaag bi keroog laa tàqalikoog ndigg luy métti mu ne waay waay yéen gone yi seen tooma seen seen maam amul morom amul moroom ci bëgg yonent bi amul morom ci bëgg alaaji Abdoulaye Niass amul morom ci bëgg Seydina Cheikh radiyallahu anhu kon tamit ñun la waxoon rek yow yàlla ñi ngi lay ñaan nga def fatahan mubinan wa taqwal sama di ci ndaw ñi kon nag ndaw ñooñu ñu ngi nii tey pay bi moo leen ñor lew nañu seen moo leen ñor maam xalifa moo leen ñor ñi ngi gërëm ñëpp ñi ngi gërëm taalibe yëpp ndax ñoom ñoom ñoom bu méttee ñoom la ñuy gis bu neexee tamit ñoom la ñuy gis kon ñi ngi gërëm taalibe yi à part taalibe yi nag kuñ ciy teg door koo teg waaye daal li maam xalifa waxoon taalibe yi rek nañ leen gërëm sant leen ndax seeni ñëw bàyyeekoo fu ne poussière beeg yëpp di leen di dal ñu ñëw ngir fuglu guddeeg yonent bi di ronu tàntab Seyduna Muhammad jaaree ko ci buntam maam Khalifa ak Mbindam yàlla ñu yàlla fayal El Hadj Abdoulaye Niass ñu mboolem njabootam wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. aouzu billahi min ashaytaani rajim bismillahi rahmaani rahim rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisaani yafqahu qawli mbokki julli di fi teew. góor ak jigéen mag ak ndaw kenn ku nekk ñu ngi lay nuyu ci sa tur ak ci sa sant xam naa kàddu gi di gudd genn kàddu la muy kàddu gi ñu dajale fa bi taazimihi amaanun bi zalaam busra bi atat bihi l anbaau loolu moo ñu fi daje màggal guddul yonent bi sallallahu alayhi wa ku bëgg assurance ak kaaraange rek màggal ko ku ko màggal da nga am assurance kaaraange kon sëñ Souleymane ñu ngi lay nuyu di kontaan ci yow bu baax a baax di am ci yow mbégte fa tabaarakallaahu gis nañ reportage bi depuis gàmmu gi des une semaine ba léegi yaa ngi fi di sàkku yoolu yonent bi di sàkkuleeru leeru yonent bi yàlla nañu ko yàlla defal gis nga euh, niñ koy berlee jëruñu di ci wax gis nga niñ koy waajalee jëruñu di ci wax màgg na màgg na màggoon na màgg na kon fa tabaarakallaahu ñu ngi lay sant di la ñaanal di la gërëm xam naa xaw a xat ak jàpp lool moo waral ñu tënk kàddu yi di la may nag di la ñaan nga ñaanalal ñu sant suñu benn xarit Abdoulaye Sylla Ecotra ak buntam Souleymane Diallo ñu ngi koy sant bu baax a baax ndax gàmmu gi lim ñu jox ci ay nag kenn mënu koo lim fa tabaarakallaahu fa tabaarakallaahu ñu ngi leen sant di leen gërëm wa ma zalika ala allahi bi aziz in uridu illa al islah masta ma sha allah